ay ca mu ngi noonu waa ah, esprit Gossas TV ki nga xamante euh, ke mosa i nge'a callel ke a na torop euh, i ndafet loo xan bo foof fo mbeg te jego teen fu nam ge to callel ke den kene waralu bo i ngarin me xaye an it parce que i moofa bo heure fe kat utel to na ndiig ten i andu ten areer a ba mbaago njalel neke ba apare heure feke iid ne xarnu e, ngeu ten ka and na daale a mosa ku nam nu mbaagu leye in yo ke i mbang na daan manga kam afrika yi nge centre fa na njanni wa ko tan wa mbiyatni erfege mayero ila la ndi jege id jege ndi ga fadanga wagari ida fadanga aussi waga jakke la centre fe yumba den jallu keke ref ci anne rok nga kam sa le xana war wino oh. le nga kam jof yor tay wina u da ya yumba ayo ngi ha ne ko si variété ba anne variété ba anne jege may tinna employé ni ka awat timrew ba ma so idin wala lu ne développement fi xéna sax de jigéen dig jigéen yi kon kel ko mu la kaatu wala may bu gën ci ko ande dëgg dëgg centre wo njal da ka te ñu fandu ak ko mbaat kon jere ngeen jox sax rek wa mu de la kan ke jam kon yaakaar ab wo fi o taw wo yi gi aduna a jahandan yi a wax deug yam ci sax be taxama be fo iya. git inum iya. yam mo fa nga bo er fek o gar so ba are ra utel wax deug xel no wara but yam imbo de na ndik ino na digit i bo mbam no hata ndik sax lekel kon immo fa nga bo er fek are ra ko utel wax deug jigam pen bek

ikunta natin turup turup turup turup turup so dito nga natin nananik dig ah iuling jiki katilay natin Kumovo vo erve kumo uta arer sate ho pangi kan ambak nunje fani ko o oh. Iku ikunta natin turup turup turup i muwak wu sate humbag inambiyane ke han sate humo jo awanse na okino kina mo fanga binum rek kana reka ka anna tan kero kino kin wara gusto ha ret bit pour te fe demba ak nu jallin tere ka mosna te mo wax de inda fit lu oh, han trop trop trop trop wag oh, nga mo julaw kam mu partout kam senegal a fitel nen wi ni ay ci mu ngi non wa ah, esprit gossas tv ki nga xamanteni ni lu mu wul baxul